moom xam naa ni bokkul ci programme bi. Hmm. waaye ku ci bëgg a defi seede rek mën naa laa bàyyi nga def ko ndax waa 2 sewal nañ ma waaye man maa moom saab émission <laughs> lu ma neex laa ciy doxal waaw. Cheikh Ibra Fall nag bis ni tey la jëflante woon mbaa gisante woon ak Serigne Touba ceddo ma jox la nga wax ci sa xalaat. ci bés bi ñeenti fani koor la ñu gisante. waaye dañuy waxante ba ci ñaar fukki fan ya mbir ma door a sotti. Mhm. maanaam day mel ni dañoo gisante maam Cheikh wax ko la mu bëgg sëriñ bi am na mu ko tontoo mhm. mu mel ni nag diggante boobu am nattante da ciy am rek saa bu maam Cheikh delsee rek day wax sëriñ bi ne ko li ma lii laa bëgg lii rek mu fendi waaye ca ñaar fukki fan ya nag nee nañ sax bisu dimanche la ca la mbir ma sotti sëriñ bi nangul ko maam Cheikh Doora nag tàmbali liggéeyal sëriñ bi ci ndigalam ñaar fukki fani yi loolu mooy mooy cottite gi waaye gisante ba ci ñeenti fani la mhm. eh, Cheikh Ibra nag li tax ñëpp war koo sant mooy la sëñ Fallou wax ne bu dul woon sama bàyyi Cheikh naat bi réer te bu réeroon kenn du ko jariñoo mhm. eh, moom day bi ñëwee ba tàmbalee liggéey sëriñ bi mhm. ñëpp tax dikkug Cheikh Ibra ci sëriñ bi nag taxaw seetlu ci lu bari mooy il fait partie de la noblesse du Kayor mhm. maanaam dafa mel ni benn prince bu judd ci benn gox jëkki ba yàgg mu am nu muy defee ci gox ba loo xam ne ku miin principe prince prince yi ni ñuy doxee da nga naan lii lu ñu jaaxal la mooy gor su set wicc su futtiku di liggéeyal as gor ni moom Cheikh Ibra ko jëkk a def ci Kajoor nit ñi ñag jaaxle ne lii kenn xamuñu ko ndax ña am fitu laaj dañuy laaj kii fu ñu ko moome mm-hmm. waaye boo ne kër baayam wàqi kër ndeyam njare mm-hmm. ñu xam ne genn wàll gi alquran la genn wàll gi nobles bi la ci wàllu juddu kon Cheikh Ibra dafa ndaale xam-xam indaale juddu bu rëy diggante boobu nag am am leen ñoom ñaar sax daa jafe kon ku leen amit mënulaa gàllankoor ci topp sëñ Tuubaa la ca des mooy ña nga xam ni dañoo roy Cheikh Ibra ca la ñu def ci diggante boobu rek lañu ne da ngay baax lool ndax yaag sëriñ bi yéen bokk way jur wu góor wala nga baax lool ndax doomi sëriñ bi nga ku mel ni sëñ Fallou day doomam di jarbaatam waaye kenn ci ñoom amul gàllankooru jébbalu ci sëñ Touba. Mhm. ndax boo ñëwee danga fa fekk koo xam ni loo tedd tedd tedd du ngeen génnante ndax nit mënta baax ba génn ay bokkam mhm. moo tax sëriñ tubaa ñëpp topp nañu ko prince topp na ko mhm. ab sëriñ topp na ko koo xam ne itam juddoom réyul topp na ko mhm. koo xam ne darajaam réyul topp na ko ndax boo demee ci nax ju da fa gis fu sëñ Tubaa di wax ne ay teggin sax day nëbb judd bu ñaaw mhm. te boo toppee sëñ Tubaa danga am xam-xam da nga ami teggin kon bu yàggee dana la yéegi ci classe bi nga xam ne mhm. fa la noblesse mën a yem te mooy am ngërëmul yàlla sëñ Tubaa noonu na askan xawma ci bu gën nitu ajana xaw ma askan wu gën nitu àjjana te ku nar a texe rek danga jublu sañ Touba. Mhm. waaye Cheikh moom lépp lu waay def ci liggéeyal sëñ Touba lépp lu waay def rek tuddee ko liggéeyal sëñ Touba faw dina am loo roy ci maam Cheikh Ibrahima force par force. force te la ciy nettali rek mooy euh, wax joo xam ne defe naa wax du ko gën a kawe mooy sëriñ Serigne Saliou Serigne Modou Aminta da koo ziyaar si. sëñ bi am fu mu ko teg mu toog fa mu jox koy xéewal ba mu dem jëwrinam ju baax ji dëkk mbuur sëriñ Bay Jóob ñëw fa ànd ak mbooloo bi ñu siyaaree ba noppi sëñ bi ne leen ndab yee de sëñ Maodo Aminta laa ko joxoon ma bëggoon ngeen dem barkeelu ci te fas ci seen aajo te xam lu ngeen ci bëgg bu ngeen ko ci fasee dana faju mhm. biñ ko defee ba noppi ba ñëw ci sëriñ bi mu leen di ñaanal moo leen wax ni leen sàllaaw san waa kër Baay Seex Ibra Faal yi topp gii nu nuy topp buñ demoon sax ba wëlbatiku lank du tee ñun ñu topp leen ndax mhm. ñoom day seen maam moonu jàngal nun ni ñuy def ba jariñu ci sëriñ bi mhm. defe naa nag loolu doy na sëkk doy na koo xam boo demoon ba wan ginnaaw njabootu sëñ Tuubaa gi ñoom ñu wëlbatiku topp la mhm. boobu màndarga bu rëy moom kenn sëñ Saaliw musta nangu ko sallaw lu Cheikh Ibrahima déedéet sëñ Saaliw fa fam tegoon sëriñ bi la tegoon na maanaam sëñ bi bu dee xaali sëñ Saliou moom dafay kawe ba mu ëpp ndax moom ñi àndoon ak sëñ bi moom kuñ ciy tuddit sans bàyyi diw rek lay wax mhm. sans bàyyi Cheikh Ibra la daan wax mhm. njabootug Cheikh Ibra gi fam leen mhm. tegoon euh, loolu ñu bari yaakaar naa ñi nekk ci kër gi am nañ ci màndarga wax na sëñ Cheikh ab Khadim Fall mii ma tudd rek ne ko saa bu ma jugee di liggéeyal sa sa sëñ Touba bu ma gisee lu ma bokk ci baay bàyyi Cheikh Ibra damay xam ne liggéey baa ngi dox maanaam moom ab takk la woon ci moom mu xëy gis lu bokk ci Cheikh Ibra Fall ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba li ma wax barki démb ne moo ko wax sëñ Béthio moo ko ne fépp fu ñuy waxtaanee Cheikh Ibra Fall mhm. na mel ci yow ne mooy sëriñ bi wallaahi naa foofu nag doy naa yem ndax fam tegoon sëriñ Tuubaa rek la ko teg mhm. nam boo gisee cër yu rëy yi leen jox jànnatu juróomi junniy pàkk la leen fa jox mhm. moo moo joxe ndigalit ñu defar barabu seex Ibra Fall bi ci jamonoy sëriñ Modou Aminta Fall Serigne Saliou bokk na ci acte yi mu gën a posé mooy yéegal gi mu yéegal niveau Baye Fall yi mhm. ak ànd ko nag ak jëwrinam ju baax ji di sëñ Modou Aminta Fall nga xam ni akay jàmbar su ma juumul 2006 rek addiyaam àgg na ci 600 millions yoo xam ne genn genn tisbaar la ko jox sëñ Saliou keroog dañoo togg ay añ ay ñaari nag la ñu togg tufe kër sëñ Béthio yóbbu ko sëñ bi ne nañ ko yóbbu kër sëñ Modou Aminta Fall bis boobu sëñ Modou Aminta 600 millions la jox Serigne Saliou daana wax ne du ma dencal doom lu dul yàlla ci magum juróom-ñett fukki at ak nangam di joxe addiye ju tool noonu keroog ca ngoon la dajale ak njabootam ne leen lii ma def de mag mu toll ni man bu ko def te waxu ak sam njaboot day mel na nga ñaan waaye maa ngi leen di seereel ne du ma dencal doom lu dul yàlla bu ëllëgee yàlla rek ngeen di doon ci man mhm. tey ñaari taawam yu baax yi muy sëriñ Moustapha ak sëriñ Fallou kilifaam daanaka ñoom la sëñ seen sëñ Amdi Moodu Mbenda yenn yoonu Baay Faal mhm. te ñu mate ko sëkk te jiite ko te yor ko kon Cheikh Ibra mhm. bëgg ko farata piir la mhm. roy ko farata piir la waxtaane ko farata piir la ci ku bëgg dara ci sëñ Tuubaa waaw yal na nu yàlla saxal ci Baay Faal amiin amiin Abdoul Aziz waaw Pape wax ci sama sang bi waaw xam naa day xanaa di sant yàlla rek bim ñu boolee ci bis bi ñu fekke ko di leen ci di ci ndokkeel comme ni ko Ceddo Murid Saade waxee di ci ndokkeel Baye Fall yëpp profito di ci ndokkeel sama benn xarit boo xam ni ñooy ànd guddeeg bëccëg mhm. te moom ak way juram ak parce que ñoom ñëpp yaakaaruñ ku dul Cheikh Ibra muy Abdou Fall Guèye mhm. nekk fële ci Tivaouane macha allah sama xarit ñuy ànd guddeeg bëccëg euh, Ceddo daf ci wax wax bu am solo boo xam ni nit ñëpp dañ ci war a jàngat mhm. maanaam njàngale mi njàngale mi mu def te njàngale mi weesuwul boo dégluwaatee bu baax dangay yëg ni kon bi muy ñëw ci sëriñ tuubaa moom booba fekk na mu nekk doomi soxna fekk na mu peeg xeetu xam-xam yi mu war a peeg yëpp fekk na mu peeg alquran ci fànn yëpp fekk na mu peeg xam-xam ci fànn yëpp loolu njàngale mi mu ci def mooy wane wane dayoo Serigne Touba maanaam wane dama mës a dama mës a wax benn nit ni ko Serigne Touba dafa bind ni maqamaatu xayril xalq an xayri rabbi muqayyabatun fal taqra an surata najmi ma ne ko sëriñ Touba dafa dafa dafa wax ni maanaam dama ko laaj ni ko nooy firee bayit boobu mu ni ma Serigne bi dafa wax ni maanaam dayoo yonent bi ni mu toll moom la sëriñ bi di nettali ma ne ko déedéet ma ne ko Serigne Touba dafa bi dafa wax ni yonent bi ni mu toll ku dul yàlla xamoo ko ma ne ko loolu la bi dañu maanaam garaatu yonent yàlla Muhammad ku dul yàlla xamuloo ko yàlla rek moo ko xam ma ne ko nag moom garaatam moom mi wax loolu moom mi wax ni garaatu yont yàlla muhammad ku dul yonti yàlla muhammad xamuloo ko mhm. ma ne ko moom nag garaatam ku dul Cheikh Ibra Fall xamuloo ko ndax boo dee xool ci yoonu murit Cheikh Ibra moom moo wane dëgg dëgg garaatu Serigne Touba parce que maanaam gis nga gis nga liggéey bi nga xamante bu fekkonte ni ku xamul dara la maanaam ku nekk koo xam ne dafa dikk pour ñu yóbbu ko wala ñu defar ko wala ñu jàngal ko bu boobaa mën nga ni dafa am lu mu def ci moom dafa am fu mu jaar moom mais koo xam ni peek na mooy toujours njuuma ku jommal njuuma yow war nañoo lijjanti loo doon maanaam ku jommal njuuma yow war nañoo lijjanti loo doon te moom bi muy ñëw booba fekk na mu peek léegi nag li maanaam njàngale mi mooy dayo Serigne Touba fi maanaam ni mu def ba Cheikh Ibra Fall sukk ci ay tànkam loolu du lu nit di teg bët. Mm-hmm. maanaam mën nañ wax nii ci zaahir mais du lu nit di teg bët. ba mu wanee fu tànk bi jaar ba génn. ma topp ko voilà looloo ma yitteel. waaw kay foofa la contrat kon xam na moom moom xam na moom yow yaa xamul. Mm-hmm. keneen ak keneen mais moom xam na li muy def. te benn mag daf ma mës a nettali dafa am ku ko mës laaj moom chebre ci be ci ci jëf ju mu jëfoon mu laaj ko ni ko li ngay def nii foo ko teg mu ni ko maa ngi xaar ëllëg ba xam yàlla dana fay wax bàyyi jëf mm-hmm. mu ni foofu rek laay xaar yàlla bañ dem ëllëg ba xam yàlla dana fay wax bàyyi jëf te yàlla wax na ci alquran ni du ma fay wax bàyyi jëf wax na ci alquran ni jëf laay fay te ñëpp nangu nañu jëfam moom Cheikh Ibra mhm. waaye li ci li ma ci gën a intéressé ëpp ci solo mooy njàngale mi daal mhm. maanaam wane gi mu wane ni nit ak niveau bu mu mën a toll bu dajee ku ko supérieur li war ci moom mooy topp ci ginnaawam mhm. maanaam njàngale moom mu def te Ceddo wax na ko sànq muy lu am solo mu ni Serigne Saleh te Serigne Saleh yàlla yàlla dolli leeram te tax seen barke te wax ko mooy ñoom ñii doomi xaadimu rasul mu ni maam Cheikh Ibra moom moo leen jàngal ñoom nan lañ war a toppee seen baay xaadimu rasul parce que nitu yàlla deret boo ko ci dee topp doo ci jariñu mhm. maanaam nitu yàlla mu jur la te maanaam fi mu jaar ba toog ci maqaam boobu jaaroo fa doo jariñu ci moom maanaam mhm. kër nitu yàlla maaj moo fay jariñ mook armée yam da ngay maaj takk grade soo maajul doo takk grade mais dafa mel ni moom nag dafa maaj ba takk grade moo tax tey damay wax ni maanaam diggante Cheikh Ibra Fall Xaadimu Rasuul kafe la ak suukar rek mhm. maanaam boo génnee suukar si boo ko dee naan di nga gañ <laughs> jërëjëf Mame Abdoul kon kontaan naa bu baax ci yow danaa la accélérer course gi sax pour mu gaaw a yegg Cheikh Bara. mais pas course gi ñaata pere ci des. du Seck Serif moo la njëkk a tàmbali <laughs> Cheikh Bara. Ah, waaw ah yow moom da ngaa laxasaayu tey yow moom. waaw. Euh, yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci kër gi moom. monte day euh, xëy na lu yàlla dogal la sax waaye depuis ma am émission bi euh, sama xaritu jàngkat bële léegi yaa ngi naan da ngaa waroon ànd ak jàngkat ñëw na sëñ Modou Dieng ma moo ma ñëwaloon li ma ne ko lii de bu may dem 2STV laa koy sol. te émission bi sax du woon tey. dañoo dem ba démb xaw ma barki démb la ma jàlloo woon ne ma dañ koy arriéraat jàpp tey. mu te mu tombeek bis bi. ma xam ne kon yéenay borom yére bi mat na. macha allah. Mm-hmm. Euh, euh, Cheikh Ibrahima Fall nag maanaam aw doxalinam dafa mat a jàngale ndax da nga ciy fekk diine ju fees dell fekk ci ngor gu mat sëkk. lépp tamit di yàlla yi kese kese joo xam ne maanaam àdduna raxu ci dara ba tax na daanaka loo dem dañ ca fekk ñoo xam ne ay naafeq lañu waaye naafequ Baay Faal moom yaakaar naa bëriwul mhm. ndax loo xam ne aw ñaq mooy témoin sa mbir moom mhm. ñaafe naafeq nag mën naa làqatu ci gannaaw julli mën naa làqatu ci gannaaw woor mën naa làqatu ci gannaaw sax topp ab yonant te fekk ne day naafeq rek mhm. waaye rythme bi Baay Faal yi di doxe mooy liggéey joxe yalwaan dunde loolu boo ci nekkee naafeq balaa nga cee def benn journée mu feeñ. Mm. moo tax naafeq Baay Faal yombut. te topp doomu aadama ñu baree bari dañ ci juum waaye yàlla ci suñu borom mi ñu bind. Mm-hmm. moo ñu digal ñu topp ko te topp googu mënta am ci lu dul ñu topp doomu aadama. ndax nit bi ko yàlla bindee waxu waxugut ak moom nit taal na safara ne ndegam safara dafa tàng xaaral ma ma wër ci yàlla. Mm-hmm. yàlla yónni yonant ne leen bu ma kenn wër ci safara. nit topp na aw mala woo xam ne du nit mënta wax muy aw nag wala muy leneen suñ boroom daal di àdduna ko bu ma wër ci nag nit topp nay biddiw di ko di ko jéem a toppe boo demee ci Égypte pharaonique ñoo ñooñu doon nañ jaamu sax jant bi ñoom ak na ñu ñoon ñoom ñëpp côté boobu jamono boobu doon nañ jéem a sax di jaamu jant bi parce que màggaayam ak njëriñam mm-hmm. yàlla àdduna bu leen ma wër ci ci ci lii ñu bàyyi fi li yàlla bind nit defar dara di ko jaamu mi ngi mel ne yett ab bant wala defar ab aw xeer tiimaati xeer wa di ci wër yàlla yàlla xamal ne leen bu leen ma ci wër nit ñi nag daal ne tekk na léegi nag yàlla kon mënuñoo ñàkk ñëw ci yow fan la ñuy aw mu joxoñ jëmm ne atteon laaha wa atteon rasul maanaam topp leen ma man ñëw leen ci yàlla topp leen yàlla waaye yàlla foo koy toppee ci kaw nga jëmam ci suuf wala penku nga jëm wala ca gan soow mu ne topp leen ndaw waa ji rek fa ay namaatu walloo fa sama waccu laay maanaam topp leen waa ji rek waajooju mu ñu toppaloo nag bi ñu geesoo fekkuñ fa xar fekkuñ fa nag waaye nit lañ fa fekk nit kooku topp ko mooy topp yàlla wan ko gannaaw ñàkk koo topp mooy weddi yàlla kon ñu ne xanaa kooku li mu tudd Muhammadu ibnu Abdullahi la nekkoon rasulullahi moo tax nit man koo topp te doo dem safara ñu ne waaw ñu koy topp ba mu yàgg yonent ba xëy daal di génn àdduna ba mu génnee àdduna saxaaba yi nga xam ne ñoom dañ nañ ci ak réer te xam nañ lan mooy yoonu yàlla ndax yonent bi nandal na leen ko ba noppi ñoo jël seen moroomum jaam moo xam ne wóor na leen ne yàlla yónniwu ko te wóor na leen dub du te wóor na leen ne jotul wax yu mu tudd Aboubacar Siddiq ñu teg ko fa yonantu ba togoon def nañ daan def ci yonant bi mu di leen digal la leen yonant bi doon digal ñu koy defee noona di ca am ngërëm lañ daan am ci yonant mhm. kon mu wane ne topp yonantu mooy jàngale ni ñuy toppee yàlla waaye ni ni war topp bu yonantu ni mu waree ki nekk ci li yonantu nekk soo ko toppee topp nga yonant foofu la topp doomu aadama jóge ca lañ toppantee ba agsi ci diggante comme sëñ Tuuba seexib ra ndax ñu bari dañoo defee ne topp ci gannaaw nit ak réer la waaye nit loo xam ci yàlla nit la ko wax alxuraan ji li muy rëy rëy bu nit ñëpp ne woon tekk kenn waxatut ñëpp xëy feebaru muuma dugg ci réew mi ñëpp muuma ñi mujjee juddu kenn du ma ko alxuraan mm-hmm. kon loo xam ci yàlla nit la ko xamal sëñ sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra nag loolu la kon topp nit du dof du ñàkk fayda du ñàkk yeewu waaye day ndigal lu jóge ci suñ borom te ku bëgg taw tawféexi yàlla da ngay nangoo topp ci doomu aadama nit nag boo ko bëggee topp te jëloo sa bopp jébbal ko mënu defar mhm. ndax ki jébbalu tamit kenn du ko togg kenn du ko lekk kenn du ko naan dañ koy wutal bëgg-bëgg yi méngoo bëgg-bëgg suñ borom mhm. mu cay doxee yàlla di ko fay loolu mooy jébbalu alxuraan nag daf ne yaa ayyuhal lazina amanu aleykum anfusakum laa yadurukum man dalla izaa hadaytum waxaat waxa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wala duwaan mhm. yooyu yëpp su amee rek dafay wane ne euh, gis nga euh, Pape Sidi mhm. Sénégal euh, dañuy dañuy dañuy dañuy dañu lay mere daan ne la merewu ma la yàllaa la mere maanaam ab sénégalais da lay mere ba noppi na man merewu ma de waaye yàllaa fekk yàlla merewu la moom la mere mhm. loolu dafa am ci réew mi bari na ay kiiraay yu am ci diggante mbirum Baay Faal ak ay doxalinam waaye topp ci lenn ba seppi ko ne lii du lislaam kenn mënu ko Seex Ibra jébbaloom ci sëñ Tubaa dafa wér parce que ceddo murit mi ngi nii dégg ma da nga dégg sëñ Maam Cerno da nga dégg sëñ Seex Anta waaye sëñ Seex Ibra mosoo koo dégg kuñ tudde sëñ Seex Ibra ba noppi ñu lay wooyeb sëriñ sax amul maam Seex ak Seex rek la jël sëriñ moom bàyyee na ko sëñ Tubaa nit nag ku jébbalu ba saw tur jébbalu ba say turandoo jébbalu waale kenn mosu koo gis amul kenn ku ñuy wooyee sëriñ te fekk Seex Ibra lañ la tudd cheikh maam cheikh rek ngay dégg waaw wala ngundaak toujours wu ne mën nga koo dégg waaye sëriñ diw sëriñ sëriñ cheikh ñu ne cheikh sëriñ di cheikh Ibrahima tax jóg amul kon ku dé ku dé ku jébbalu ba soo tur jébbalu ci cheikh Ibrahima Fall la am bi ci des mooy euh, nit ñu bari dañoo defe ne woor julliwut kon ab yéefar la kooku yaa ko wax waaye yàlla wax loolu nag dafa laajoon baa bu gën a rëy ñu ma ëpp xam-xam toog waaye maa ngi lay wax ne alxuraan doo ci fekk mukk fu yàlla waxe ne ku julli wut ma yóbbu la ci sawara wi ku weddi julli nag doob jullit waaye ku weddi julli ba noppi tabax jumaa mësu koo gis julli ak ak ak te lislaam nag dégg-dégg yi dafa yaatu am na ñoo xam ne dañuy takk lu ëpp juróom benn fukki soxna te ay jullit lañ jàppe seen bopp seen déggu-déggu diine la doo ne ku romb ñeenti soxna doob jullit dégg nga lislaam dafa am loo xam ne yàlla dafa am fu mu ko teg mooy gis nga gis nga gis nga joxe yàlla fu mu la waxee ak mu salaata wa aatu sakaata yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah maanaam yàlla ni mu favoriser waajuy jëf ci poosam favoriser wu ko waajuy sëgg di julli ci lislaam defe nga ne koo xam ne bu bëccëgu koor gu ne nga teg juróomi téeméeri booli cinq cent booli booli bu ne suur na juróom fukki ponkal wóor na ne la ki nga koy yóbbul fayu la boo koy lijjantil du la ko du ko lijjantil soo ko koy joxit bu doon tane lenn ni adduna mi ngi ci rek doo ko ko jox maanaam yàlla suñ borom dong dong nga natt ci waa ji ba yenu sa booli ne booli bi yàlla laa koy jox bi nga xoolee nga ne yàlla de xam naa ne ma nga kër sëñ tubaa moom sëñ tubaa moom mbiram yàllaa ngi ci ñu yàlla ci kan la nekk xam naa ne di sëñ Muntaxa moom jàpp naa ne bu yàlla day nekk ci biir murid ci moom lay ne nga natt koo natt natt ba sa xel nangu ko mm-hmm. soo yanoo sa booli ba buntu kër sëñ xaa nga teg ko fa teg nga ko ci kanamu yàlla mm-hmm. ndax foo mënoo romb foofu di wëriwaat feneen yàlla waajoo xam ne nag bis bu nekk mu jël alalam te Baay Faal ni muy joxe loolu lu mat a bàyyi xel la ceddoo mm-hmm. dangay ñëw ci sëñ bi dem ya lijjanti ba am aw nag andi ko ne bi nag waa ngi nii dama la koo joxoon addiya bëgg dem mu ne la déet loolu day yomb futtil sa mbubb mu futti ko mu ne la tër ko fee nga rendi ko nga dem rendi ko mu ne la toj ko yaa andi nag wi de nga toj ba yeggal mu ne la togg ko nga dem taxan say matt andi say kii togg ko ba mu ñor bëgg koo ñam mu ne la bu ko ñam <laughs> yaa ko togg yaa ko andi yaa ko yaa ko rey yaa ko fees yaa ko togg waaye yanul ñu dem mhm. nga yanu koy dukki dukki ba ci benn benn góor gu màggat gu toog mu jàpp ne kii moom maanaam fi mu toog boo ko rombee doo romb romb yàlla mm-hmm. mu ne la tegal nii nga teg mu ne la acu an delluwaat kuy joxee noonu yàlla sa hadiya mm-hmm. ah lislaam bari nay jaar-jaar waaye man xaw ma ko mm-hmm. su fekkee nag dañoo jàpp ne nit dina jëbbal boppam yàlla ne wax ashadu an laa ilaha illallah gëm ko ba boo taxawoon fële di wax laa ilaha illallah ku ko dégg sam dem ci Baay Faal yi nit du nekk yéefar ba noppi mandargaam di nekk baatub laa ilaha illallah mënta nekk nit du jàpp ci baatu laa ilaha illallah ba noppi maanaam di nekk bu yéefar mm-hmm. wala tuhaadu man raaytu faahu yuxriju laa ilaha illallah mm-hmm. dégg kon ñooñu aw doxalin lañ yor ci diine ak aw déggiinu diine woo xam ne fañ ko jëlee kooko sori na ca diine ba dégge ko mm-hmm. suñ dee doxee noo xam ne miinoo ko xamoo ko nag mm-hmm. rikkiwaay boo leen bëggee ŋàññi demal ci alxuraan bàyyi yàlla ŋàññal leen boppam ndax jullit ñi yàllaa moom mm-hmm. waaye du ko mere nag ne ko roppi naa la ci sawara si mm-hmm. ba noppi doog a wëri aaya bu ko teg <laughs> waaw loolu bu boobaa day nekk leneen moo tax mbirum sëñ Cheikh Ibrahima Fall mbirum yàlla la moo xam ne ku ko sori de waaye ku jege ab Baay Faal gis ni ni ni ni nekk ay góor yàlla mm. ak bu buñ bu buñ buñ buñ dogoo ci yàlla ni ko yàlla gaaw a see hmm. da nga xam ne ñii li nekk na xarit yàlla wallaahi waaw wallaahi jërëjëf hmm. euh, Cheikh Bara am na loo xam ne moom maa ko fekk hmm. ci suñu ndaw yëpp Medina Fall ca Njaareem dañuy togg ndogu yi ba nuppi ñam buñ koy def dañuy dem woo kenn mu ñam xorom pour xam ndax saf na loolu lañ ciy def ci lekk bu ñu la defalee barkeelu ci ñeex mi ñuy tibb bu desee ñeex mi ñuy génne mm-hmm. dañuy wut ay poti beurre ay poti chocolat lañ la koy defal mm-hmm. waaye da ngay bàyyi ba ñu yóbbu Touba jamonoy euh, sëriñ <coughs> Saliou mm-hmm. ba jamonoy Serigne Bara ak sëriñ Sidi Mokhtar ba sëñ Muntaxa mii tey yi ma fekkee bokk ñun ñu nekk ci waaj wi fajar ba ndogu weesu ba nga dem sa kër ba ñu ne sëñ bi ñam na ba nuppi ndog jot na ba sëñ bi lekk ba pare ngeen door a lekk sinon kon boo ko defee dañ naan yow li nga jox sëñ bi ab des la te sëñ bi ëpp nay joxub des maam Cheikh Ibra daal man maanaam man dama cee dama cee mën ta nga ni ki la ñëwal nu mu tudd ki ñëw li nu mu tudd lii Mbacke ñaan Touba Madina Couture moo ko ñaw Mbacke ñaan est-ce que xam nga ni mu ngi fi sama xarit bi moo ma ko moo ko ñaw loolu nag muy Modou Dieng Modou Dieng na bien très bien ku man ni ndax xam nga ni Modou Dieng a ngi waaw Modou Dieng mi ngi ñuy toog waaw waaw Modou Dieng damaa bëggoon mu mu barkeelu ci rek balaa ñu dem ci yeneen ponk actualité yi hmm. Modou maa ngi lay siyaar bisimila foo jaar yoon alhamdulillahi wasala abada alalasi bihi lana huda bada alhamdulillahi wasala abada alalasi bihi lana huda bada sayyidina muhammadin wal aali wa sahbihi sawil nawalil waali haasa wa in yawma suu tawassuli law bi asmaa'i sawi tafadduli fa qultu yaa garibu yaa mujibu salli ala allazi bihi tujibu waqbal bi nasbiha sa yaa karim waab li man bi naaji maa yeroom rabbi bi noohin wa bi ibrahima lexe fir sunu bi wak fi ni rajima wakum bi muusa wa bi jaayeeso waaxiyani dunya wa xura Musa wa bi Muhammadin rasulullah sallallahu alayhi xayru salawatullahi summa alayhim li ab imatna xat sangabal islaama wal ixsaana bi hurmati siddiqi wal faaroxi juddilee bil ixlaasi wa tawfeexi bi aqi usmaana aqi noorayni wa bi alin waldi sibtayni abliya fi dunyaaya maa uxraaya anoro wal hulwa wal masaya bi aqi talhata wa bi subayri wa aqi saadin najini min dayri wa bi saidi wam ne wa fi najini min kulli maqaafa min fitani wax naa la bis ba ndax mu daa bàyyi maam say na bu njaay isa jeey fatim penda isa jeey fatim pendaay la tukkaa be ngoone dameel xasana tukkaa bi fatim dameel de jeey fu njoogog dameel samba yaaya faal Cheikh Ibrahima Faal lamp wax naa la bisu ba ndax mu wóor ñaar fukki fan ci weeru koor bisub di la biir ma wóor Cheikh Ibrahima Faal moo fa xewal sori sagar moo fa xewal sëqar kawal daaw fa bay drange dang daa bay maam sa yi na bu njaay ba mu ñëwee mbàkke bawal dafa ne waa kër gi bàyyi wal naay sa ko tey rootaka wal booleeg liggéey di ko joxe Seex mhm. Ibra Faal lu bambox mu daal di naaw foore juréy ja sant saaw naa ko da ngay deltu gannaaw jàngil muriitu dum bexe Seex Ibrahima Faal mboole murit yi daan ko daan soow Seex Ibrahima Faal mel ni dof te yeewu ba mujj far ñëpp na seew melo ma far di ko waxe Cheikh Ibrahima Fall jiitu far Fall amul moroom far gëni mbokk gëni doom eey jaaraama jaaraama jaaraamal xadiim Cheikh Ibra Fall wàcc nga wàccaale texe Cheikh Ibra Fall mësulaa juyog ndigal naka nga jóg tàggoog mbugal ko aw sa mboor duñ ko mbugal gërmee yaa tax ñuy texe Cheikh Ibra Fall yaa njëkk a sa xol Fall fekkoon nga gaa ñay xor xoral ñalay takkal faal ak ñalay setal yaa xal ngir ma ñuy doxi Seex Ibra Faal yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daaw werantee kob sëriñ bàjj bi yaa bari njariñ mhm. waane wi yàgg ngaa doxi Seex Ibra Faal yaa ami ngërëm ba ami dërëm fab say dërëm jënde yi ngërëm loo musa am tàbbal këram ay junni daal nga daan joxe yaa njëkk a joxe addiya gileem yu safi ngur du safi koom sodaar sa yaa joxe sa doom ja fàllu faal am na taxe sa ndaw na doon dem ba gaaboom du yóbbi saa koy rong jëwat ca gaal yori bong doo denc lëf ba muy maxe Cheikh Ibra moo tax nga mel ni saxaar kuy naara dem na fa jaar kuy ñaanit paas na seeti gaar bu mu nekk ba naanaka pexe ndegam da ngaa xeebit sa paas buy wata yaa nga fa gaaraas seetal wax ci taxees ndegam da am la joxe bàyyi sa du may wata kuy xam ne yàlla du fitta ku ci andaar góob cay mata jël ci taw bii di bex bexi Seex Bamba taw bay mu sawa Seex Ibra taw bay mu sawa ji war na faa doxe Seex Bamba am nam fàllilu Seex Ibra am nam fàllilu ko xam na faali falilu mbaag mu jam dafay torox Seex Bamba ba li nam basiir alaaji fàlloo Seex Ibra Fall bég li basiiru mbég moo ci dem lekk ba suur jigéel ma kay doggi joxe Seex Bamba am na Abdoulahi Seex Ibra Fall am na Abdoulahi abdu mu ci nekk mat na waay bu dee dëccee bokkaay dexe Seex Ibrahima Fall waay waay mas na xebaar ak njëbbu loom bay wax na yàlla mi ko moom mhm. moo ko ni Bamba moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa am murit di aw baraw pexem murit ba am ngërëm bari murit te dootu reeti tex texi Cheikh Ibrahima Fall mu daal dem tey ba Dakar ngir dégg Cheikh Bamba di fa xaar seet na sëriñ tey ba Dakar cim njàng lay xamee pexe Cheikh Ibrahima tëdd na guddi si xaar ba ten mu xëy ba tisbaar sëriñ Maxtaar fa jaar leeram gu rëy ga woon koy pexe Maxtaar nga yori joor yónni ko jëm Mbàkke Kajoor sëriñ ba yónni ko ca buur Cheikh Ibra topp cay fexe mu gis fa Cheikh Adama Gueye sànni mbiram daal di ca ngoy mu wan ko Bamba mbër mu rëy sëriñ ba ko foo fexe wax ko tegtalee fa moom sëriñ ba wan ko la fa moom mu xam ne gis na ko ko moom mu daal di fam mbiram joxe Cheikh Ibrahima Faal musoo bu faal far ba jiitu leen seer bamba na ki yëpp na leen leeram gu rëy ga na leen fu tollu xol bay noxu noxi wax naa ne tooti kon mu dem fekk sëriñ Tuubaa lam ay mbiram tàggat musibaati naam ba dul ca bis ba nuy texe jarama jaramal xadim Seex Ibra Faal wàcc nga wàccaale ak texe yow mosulaa jóg ndigal faal naka nga jóg tàggoog mbugal ku aw sa mboor duñ ko mbugal gërmee yaa tax ñuy texe Seex mhm. Ibra Faal yaa njëkk a jébbal sa xol fekkoon nga gaañay xor-xoral ña lay dexal faal ak ña seetal yaa xam la ngir ma ñuy doxe yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daa weran sëriñ bàjj bi yaa bari njariñ wana wi yàgg nga naxe Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall la dale Ndar Fall ba Dakar jàpp gannaaw yoonu saxaar mbër mu firé ba la kaar Cheikh Ibrahima Fall ngay laaji pexe Ndar la ko doomi jaara may leeral na boppam jaara ba tey waykat wa Cheikh Samba jaara mbay yaa tax dënam bay beex beexi addee Serigne Touba <laughs> waaw waaw murid ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñàkkoon cee moom du du du ko du ko du ko neexal lool ni ma ko bëggee woon te nag lii dama doon def lancement bi rek danañ def jotaay bi Cheikh Ibra boo xam ne ñun exclusivement rek ñun ñooy nekk ci plateau yooyu ngay wax yëpp sëñ Bara dinañ ko waxtaane yow bul am dara lu na xari parce que damay bañ su ma waxee ñu ne ma yow yaay yaay gérer affaire bopp yaay yaay ah, moo tax waxuma dara damaa seetaan rek ne lu ngeen décider rek baax na dafa am ay ponk actualité yoo xam ne nag dañ ci bëgg a waxtaan euh, balaa ñu naan ma yow Pape Sidi da ngaa wax ci Cheikh Ibra ba pare joxoo jànk yi non non jànk yi moom wala bàyyi ba jotaay bu mag bi ma door leen a jox seen avis non euh, non <laughs> dafa may waxal lu lu ëpp dafa may waxal lu ëpp moo tax duma ko jox dara dara laa ko joxut dafa am benn mbir moo xam ne moom mooy suñu premier élément d'actualité bu ñu bëgg a waxtaane mooy procès bi nga xam ne en appel procès Ousmane Sonko ak mambay Mbaye Niang ñëpp xam nañ ne am na ba noppi mais actualité bi dafa génne ne Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko appel bi procureur def ak Mame Mbaye Niang dinañ kon jugé waat seen dossier ba le 17 avril est-ce qu'on a un élément oui euh, naka ngeen gisee lii nga xam ne ça se profile à l'horizon je vais donner la euh, Astou Astou oui euh, bon je trouve que suite logique la du moment où euh, ki nga xam ni Mame Mbaye Niang am na droit def appel parce que euh, d'après en tout cas li mu euh, xamle mooy ne ni ñu àttee li nga xam ni moo di dossier de diffamation boobu kii wu ci amu ci li nga xam ni moom la ci doon séntu donc je pense que comme tout citoyen sénégalais am nga droit boo gisee ni yow ni ñu àttee en tout cas neexu la wala gisoo ci sa bopp am nga droit def appel donc je pense que lu mu war a def la def mais bon peut-être bu ñu amee lenn lu ñu ciy wax pour euh, euh, lu concerne sénégalais yëpp mooy na rek mbir mi jaar ci yoon ba nga xamante ni apaisement dina am comme verdict bi nga xam ni moom lañ fiy joxee d'ailleurs ni mu indi ci réew mi donte nit ñi tiitoon nañ mais euh, à la fin amul woon benn loo xamante loo xamante ni en tout cas am na ci comme ay incident donc man côté boobu rek laay waxee parce que c'est deux personnes donc yoo xamante ni ñoom ñoo am problème ak yoon donc je pense que sénégalais yi war nañ mën a vaquer seen occupation lu ñu gisoon ci veille bi bañ am wala ci jour bi sax laay wax bañ a amaat